mbir mi est-ce que nekkul piège. Hmm? est-ce que nekkul piège est-ce que président bëggul un peu tester cette majorité à l'Assemblée incarnée plus ou moins par mm. Benno et les autres pour xool est-ce que vraiment euh, dina su dinañu dinañu ànd ci loi boobu nga xam ne. xam nga bon interprétation la. Euh, parce que quand euh, même dans dans l'analyse comment dans l'analyse politique et dans le commentaire de manière générale di nga mën a interpréter neneen dañuy wax tendre piège la mais mun nga tam juger que ne président toog na xool juger l'opportunité de saisir l'Assemblée nationale sens de dissoudre ces institutions là xëy na moom il veut accélérer la cadence xëy na moom man man financière boobu bëgg na ko am fu mu ko dugal loolu tam mu nga ko indi si kaw table bi comme mun nga indi comme ni nga ko laajee euh, piège question piège la euh, proposition piège la pour voir quelle pourrait être la réaction de la majorité actuellement incarnée par par Benno mhm. mais tu sais la majorité incarnée par Benno également la première erreur commise te ñenn si borom xam-xam yi nee nañu sax c'était un motif de dissolution de cette assemblée nationale du man maa wax. Mhm. dama ne ñenn si ñu seen xam-xam match loolee jàppoon nañu ni c'était un motif de dissolution de l'assemblée nationale mooy keroog. bu ñuy sukkandiku ci ab lettre bu ñaari nit euh, tontonte waxante mu sukkandiku pour dàq li nga xam ni moo jëm ci waxtaan gu ñu waroon waxtaanee wàllu budget bi débat d'orientation budgétaire boobu nga dàqee ko noonu alors que en réalité am na lu la tënk pour nga mën ko waxtaanee en fait suñu si lu ñu sukkandiku dafay dafa woyofoon lool mm-hmm. c'était c'était trop léger et boo koy xool en réalité Euh, la politique a, a fini d'entrer partout ouais. la, les pratiques politiciennes sont entrées partout les calculs politiciens sont entrés partout mm-hmm. te jàpp naa ni nag am na fooy toll ci sénégalais am na fooy toll ci citoyen am na fooy toll ci responsabilité par rapport la ngay occuper comme fonction Euh, surtout la représentation nationale mm-hmm. mënta ñàkk calcul politique parce que c'est des partis et des coalitions qui s'y retrouvent n'est-ce pas oui. élu par les forcément politique dafay am mais day toll niveau yoo xam ne il faut quand même que camp bi ak camp bale ak fu munti bokk dafay dañuy war di dajaloo dañuy war di booloo par rapport à des questions d'intérêt national yoo xam ne en fait lañ say séntu du dara lu njariñu Sénégal mm-hmm. tu sais on ne veut plus en réalité avoir mécanique et électronique ah euh, euh, boo xam ne en réalité lu ñu ko andil euh, en réalité mu mu voté ko c'est-à-dire que c'est là où on attend les véritables ruptures et pour cela mhm. impérativement il faut que l'on revoie le profil parce que je suis désolé de le dire je suis pas plus sénégalais que que qu'un autre pas sénégalais plus sénégalais que Grégoire je pas plus citoyen que toi je pas plus patriote que Grégoire loolu il faut ñu xamee ko noonu mais cependant il faut quand même que l'on il faut que l'on revoie les profils. les profils de nos députés. de de, de nos députés lay dem assemblée néew ma li fi nekk ci 165 députés yi am na ñoo xam ne ñi ngi bennoo ñi ngi ci euh, euh, euh, yeewu askan wi ñi ngi ci parti démocratique sénégalais ñi ngi ci non inscrit mm. en réalité ils jouent pleinement leur rôle de député mais lu néew la ca. am na député yoo xam ne 5 ans. Grégoire 5 ans la ñuy toog ci assemblée nationale mosoo du ñu mës a jël parole xam lu ñu fa nekk yëkkati ak banque loxo. ak tàcc ñenn ñi sax doo leen. voilà yëkkati loxo ki vote oui ñu yëkkati. ki vote ñu croiser les bras. loolu kese la ñu fa nekkee. ñoo xam ne bu ñu taxawee si public bi du lenn lu dul attaque personnelle xaste parce que boo yóbbu ñu bari bu ñu dem assemblée si parti yi dañuy wut ku mën a ragaju. Mm-hmm. dañuy seet ku mën a xeelu. Mm-hmm. dañuy seet ku am fit koo xam ne moom ñemee na wax loo ko sant. Mm-hmm. te yooyu yëpp jàpp naa ni dafa war soppeeku même su fekkee ni le parlement c'est c'est c'est c'est c'est écosystème mu assemblée nationale boo dem c'est-à-dire que débat toujours dafay mun a dem sax ba nekk débat ula mais je encore une fois il est temps quand même que yenn profil yi ñu bañati leen gis assemblée nationale et pour ñu mën a tabax leneen loo xam ne en réalité nous ne serons plus dans les petits esprits les petits esprits débattent justement des des personnes les moyens esprits débattent des idées alors que les grands esprits débattent justement des arguments il faut quand même que ñu yegg si un niveau mhm. de débat d'idées et mhm. d'arguments mhm. wàññi wala boog bay li nga xam ne mooy xaste mooy jiiñ mooy tam mooy wax lu dëgg ci doomu aadama te amaana lu dul turam ak santam xamuloo ko dara